Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi amati nañ mbégte ak kontante di leen dalal ci suñu émission gëstu bës bi fas yéene waxtaanee CAN 2022 bi ak suñu lion yi nga xamante ne ñoo war a daje tey ak Cap Vert ak euh, coup d'état yi nga xamante ne ràññee nañ ko ci presque pays Afrique yu bari. fii nii ci Guédiawaye croisement Sam nekk fi ak suñu grand grand ñu lay bàyyi nga yokk suñu mbokk internet yi. waaw ñu ngi ziar ñëpp. di nuyu Sénégalais waaw. ñu ngi ci suñu émission euh, gëstu bés bi tey euh, ñu la doon laaj ne Sénégal da doon day tase ak cap lan moo ci sa idée de score ak yow nan nga gisee équipe bi. waaw équipe bi moom instant bi nii wax dëgg yàlla moom toll nañ foo xam ne waratu fi nekk sax di yàggal wala ñuy nekk fii di am lu ni kii gañe rek moo ñu arrangé waaw. loolu rek laa leen wax lu ma leen wax mooy tey ñu fexe ba le tout ñu jéem gañe ki mooy cap loolu daal mooy suñu avantage waaw mais ay machine yi ay dem poro yi sax arrangé wuñu daal li leen ñaan mooy ñu jéem a gagné ay jéem a qualifié waaw. yow équipe bi noo ko gisee par rapport ak kaan euh, bii nii passé ak kaan bii lan moo si sa sa xalaat. waaw am nañ différence nag mais différence lu tuuti la parce que li ñëwoon kan bee boo seetloo dafa xaw a manqué am na joueurs yi nga xam ne danoo xaw a blessé. ñëw ni ci kan bi loolu daal xaw na ci doon loo xam ne tey lu doy waar la mais yàlla baax na. est-ce que yow est-ce que yow ak équipe bi nii nii nga gis nii est-ce que am nga yaakaar ni mën nañ fi andi euh, coupe bi. si am naa ci yaakaar waaw war nañ mën a indi coupe bi moom wax dëgg yàlla ndax ni def ba dem ba ñu yóbbu leen war nañ mën a def différence bu ñu jëlee coupe bi. tey si suñu émission gëstu bés bi ñu ngi fii nii ak euh, suñu grand ñu bàyyi ko mu nuyoog suñu mbokk internet yi. salaamaaleykum waa Sénégal waa Afrique man sëriñ Abdou Lahad Lo maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant. jërëjëf euh, Serigne Abdou Lahad ñu ngi seetlu ne tey Sénégal mu ngi war a daje 4 yow loolu lan moo si saxaat ak sa idée de score. ah tey moom nañ gën a fas jom Sénégalais yi daal boo seetloo seen ñett mas yi nii. wax dëgg yàlla équipe en tant que équipe nationale ñu jee ñetti match dugal benn bii moom loolu dëgg du yoon wax dëgg yàlla te moom bu yeboo ñu fas jom sigil waa Sénégal yëpp te yàlla tax ndax nit ñi sonn nañ trop boobu ba léegi coupe mënu fee ñëw nañu sarax ngir yàlla rek ñu dimbali ñu gën a fas jom nag en tant que équipe nationale jee ñetti match mënoo dugal sax ñaari bi ay benn bi ci penalty yi loolu moom nañ si sarax rek te yàlla tax lool moom la amoon pour yow kan bii nii passé ak euh, bi est-ce bi amul ay ay changement ak yooyu. am na am na changement quoi puisque équipe bi moom wax dëgg yàlla amu amul animation offensive quoi lool dëgg neexee rek comme animation offensive la équipe bi amul équipe bi am na changement trop bu daaw bi moom moo xawoon tane sax xaw a tane puisque ren moom équipe bi animation offensive amu si dara dara dara dara dañu war a sagal nag dimbali ñu te yàlla tax. ak ni nga ko gisee nii est que yow am nga yaakaar ni euh, Sénégal war na mën a andi coupe fii nii. ah mën na nekk de moom ci kaw ñoom ñu gëm ko ñu gën a fas jom nag loolu daal laa amoon pour wax leen. sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk internet bi tur beeg sant bi naan la. man Gazo DKR nag la ma gars yi gën a xamee ko mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nga xam ne fii tawoon la Sénégal la ñun ñëpp ay doomi Sénégal lañ waaw di ñaan tamit aussi tamit ñu ngi war a am Cap Vert tamit war see jëlee victoire bu mag sax te instant nii nii nii nii non naa na dañuy jëlee coupe bi de bi. dañ koy jëlee ren incha allah rabi si kàttan suñu borom. yow loolu moo si sa xalaat. yow euh, est ce que équipe bi bi ñu amoon euh, bi passé ba dem final ak équipe bi nii est ce que benn la. waaw benn la benn la kay. même performance yi nga gis. no mais dafa am ñaari manquant ñaari manquant am na ko muy Ismaïla Sarr ak Krépin ndax kooku moo doon jëli di yóbbu muy Krépin Diatta incha allah bi li ma gis nii nii Aliou Cissé teg gëm naa ne si mën a jëli coupe ñëw indi ko fii nii Sénégal. yow tey jii nii Sénégal Cap lan moo si sa idée de score lan nga xalaat ne Sénégal war na ko mën a dóor Cap Vert. Sénégal tey lu Awa wax rek lu Awa soo wax rek 3 rek bu dóorul ñu watu dabala rek 3 dañ koy dóor tey. jërëjëf boo amoon sa mot la fin ak kàddu ak loo sànni lan lay doon. comme sénégalais waa maa lañ ñaan ñoom ñëpp nag nañ dal te xam ni tey Sénégal da ngay indi tey tey moom vidum feete la moom naaj dañ koy indi tey. waaw jërëjëf lay jaajëfal si teewlu bi waaw ba tey si actualité réew mi ñu ngi dégg ne euh, démb Burkina Faso dañ leen a coup d'état yàggul dara Guinée ñu coup d'état liñ coup d'état yaa ngi bari biir Afrique yow euh, est-ce que tiitoo si Sénégal ak yow loolu lan moo si sa xalaat. non Sénégal moom war noo yegg si ay coup d'état yi nii sax wax dëgg yàlla <laughs> deuxième mandat war fee am. troisième mandat boobu waa juma safurla troisième mandat warta mun a am loolu du yoon waaw loolu moom warul mun a am ci réew mi soo amee say mot de la fin ak ay kàddu yoo si sànni lan lay doon. ah man moom wax dëgg yàlla. mooy Sénégal daal benn la kenn mënu ko xar ñaar ñi booloo doon benn daal man daal bu ma doon wax loolu laa am lu may wax asalaamaaleykum maa ngi. ok jërëjëf sëriñ Abdou Lahad euh, ñu ngi tey ba ba si ba léegi si actualité réew mi ñu ngi seetlu ne démb waa Burkina Faso dañ leen a coup d'état yàggul dara waa Guinée ñu coup d'état yaa ngi bari biir Afrique yow est-ce que tiitoo si Sénégal ak yow loolu lan moo siy sa xalaat. ah ah coup d'état moom xalaatuma ko si Sénégal puisque Sénégal moom depuis xaw nan laa ko mën a waxee mais loolu moom xalaatuma ko puisque Sénégal moom dëkk jàmm la ak salaam coup d'état moom xalaatuma ko balaa coup d'état di fi am moom waa ji xajal ñu moom te yàlla tax rek voilà. yow jërëjëf sëriñ Abdou Lahad boo amee ay kàddu yoo si sànni ak sa mot de la rek lan lay doon. ah maa ngi leen gërëm di leen sant daal ci liggéey bi ngeen di def nii yàlla leen si yàlla taxaw ngeen gën a jëm kanam loolu daal laa leen di ñaanal. jërëjëf ñu ngi lay euh, jaajëfal si teewlu bi merci beaucoup. mbokk yi xarit yi ñu doon teewlu fii la ñuy suñu émission gëstu bés bi di leen jox dig daje ba incha allah. Bienvenue sur